Euh, Djibril Ba ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen euh, nga nekk euh, nga bokk ci APR Alliance pour la République bokk itam ci convergence des cadres républicains des Parcelles Assainies noonu la. waaw ñu ngi bokk aussi ci kàngamu parti Euh, alliance pour le PUR bokk aussi ci mm-hmm. accord merci ci leeral yi tey euh, président Macky Sall daal di tànn Amadou Ba euh, comme candidat ci jongante élection présidentielle février atum 2024 ndax approuvé nga boobule candidature bu Amadou Ba. waaw di tàmbale rek di nuyu say auditeurs yi di leen jaajëfal yéen it di wax dëgg yàlla sant ak gërëm. suñu njiitu parti muy njiitu réew mi président de la république Macky Sall bu mu ñu tànnalee doomu parcelle muy le premier ministre Amadou Ba bu mu nekk candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci jongante yi jëm muy élection présidentielle deux mille vingt quatre hmm. di wax ne tànneef boobu nag président comme nu mu ko waxee woon hmm. du nekk tànneefu yaama neex mais tànneef boo xam ne dañ koy teg hmm. ci euh, ay critères yu leer comme nu mu ko waxee woon ci tubaab du nekk euh, un choix de cœur mais un choix de raison di wax ne ne rek kàngamu euh, euh, mooy leader kàngamu di conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar dafa ay critères yu strict yoo xam ne tegoon nañ ko fi pour xool ñi nga xam ne ne dañoo amoon yéene président tànn leen pour ñu jiite coalition bi di wax ne rek président Moussa Niass mi nga xam ne ne moom la président de la République ko liggéey boobu leeral na ko yàqul que critères yi ñuy tegoon gis nañu ne Amadou Ba moom mooy ki nga xam ne ne vraiment remplir na critères yooyu ci candidat yu ñu amoon yëpp moom mooy le meilleur choix celui qui remplissait euh, le mieux le profil de l'emploi mm-hmm. di wax ne rek euh, tànneef boobu day nekk tànneef boo xam ne dañu ko teg ci expérience bi nga xam ne ne Amadou Ba am na ko ci yorinu euh, ak doxinu réew ñu tànneef boobu tamit day nekk tànneef boo xam ne dañ ko euh, tànn ci xarañte bi nga xam ne am na ko compétence yi nga xam ne Amadou Ba am na ko ci yorinu ah politique publique yorinu état ñu hmm. fàttali ne Amadou Ba c'est un grand commis de l'État c'est un faux fonctionnaire un fonctionnaire excep de classe exceptionnelle boo xam ne ne

plan Sénégal ou ou plan Sénégal émergent sama may plan Sénégal émergent nga xam ne ni président am na ko pour yóbbu Sénégal euh, ci kanam ci wàllu koom-koom sur le plan économique et sur le plan social. Mm-hmm. di wax ne président bu muy dem club euh, euh, club de Paris uti ji ay fonds pour financer projet ak programme yi nga xam ne ne jëliloo ko ci depuis mille quatorze Amadou Ba moom la àndaloon en tant que ministère des finances te wax dëgg yàlla lu ñu soxla woon amoon nañu lu lu ëpp lu ñu soxla woon. Mhm. bu ñu demee euh, la club de Sénégal di met wax ne rek kon tànneef boobu bi nga xam ne ne tànn na na ko président muy tànn ko doomu parcelle ñun ñi nga xam ne ñu ngi nekk ay euh, parcelle waa de cœur bu rëy dañ ci am kontaante bu rëy dañ ci am. Mhm. kon du ñu ñaan yàlla loolu euh, vraiment président choix bi mu def basé sur l' expérience basé sur l' ci doomu parcelle. Euh, du ñu def lu dul ñaanal ko yàlla rek sénégal yi wóolu ko ba dénk ko réew mi bu mën a léegi yeggali liggéey yi nga xam ne ni yu am solo yi nga xam ne ni président de la République tàmbali woon na ko fii euh, ci Dakar ci fànn yëpp nag la koy wax sur le plan social gis nañ fi pour que de sécurité familiale carte d'égalité des chances yu mel noonu sur le plan énergétique gis nañu ne président bu ñëwee coupure de courant euh, xuy xayat dañ nañ ko fee dégg et que waxuma sax ndakaaru mais il mooy yemale li nga xam ne ne am na ak ñi nga xam ne ñu ngi ci réewu taax yi ak ñi nga nekk ci kaw gi président xeex na ba courant bi yegg électrification rurale ci àll bi xeex na ba aussi accès à l'eau mu nekk une réalité euh, kaw gi am na wax dëgg yàlla forage bëri yoo xam ne président def na ko ay piste de production yoo xam ne ko président def na ko ci biir àll bi ba nga xam ne ni wax dëgg yàlla ñu ngi yëg seen bopp ne Sénégal la ñu bokk ci ñun Sénégal yi nekk encore ci frontières yi vraiment am na ay efforts considérables yoo xam ne président def na ko ba ñoom léegi dañuy yëg seen bopp ne ñoom ci Sénégal biir Sénégal la ñu bokk kon di wax ne wax dëgg yàlla tànneef bi nga xam ne ne tànn nañ ko Amadou Ba waaw tànneef boo xam ne ne euh, du par parloo te tànneef boo xam ne ne wax dëgg yàlla euh, assurance la confiance la ndax président tànn na ko ndax loyauté bu mu am gratitude mu am ci xarañte bi nga xam ne ne moom am na ko ci liggéey bi nga xam ne ne seet na xolu président ak seet euh, na xolu waaye mu mel ni boobule choix bu mu teg ci Amadou Ba deful unanimité foofu ci APR euh, ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao ñoom it ànduñu ci ba génn nañu. waaw xam nga dama doon wax sànq ne vraiment unanimisme sax. Mhm. amul ci àdduna bi yàlla buur gi nga xam ne moom moo ñu sàkk ñun vraiment permettre na am ñoo xam ne ñu gëm ko am ñoo xam ne ni gëmuñu ko waaye lu ne tamit da koy age mm-hmm. di wax ne rek euh, ñun li euh, ñuy regretter quand même que euh, ñu bokkoon ci ñun àndoon ak président de la république depuis bu yàgg ñu mel ne ay Ablaye Daouda Diallo ñu mel ne ay Mame Boye Diao ñu mel ne ne ak Aly Ngouille Ndiaye ñi nga xam ne ni vraiment président daf leen tànnoon ci Sénégalais yi Hmm. dénk leen ay responsabilité ba ñu mën a liggéeyal seen réew hmm. ñooñu su nekkoon si ni sago su nekkoon si ni suñu amoon lu ñu bëgg mooy dañuy continuer ànd ak président yekkali liggéey bi nga xam ne ne liggéey bu rafet bi nga xam ne président sumb na ko bu hmm. nekkoon si ni sago ñoom ñëpp dañuy toog des ci coalition mais boo xoolee coalition Benno Bokk Yaakaar euh, ñi nga tudd muy ñi bokk ci alliance pour la république ñoom ñoo génn ci coalition mais vraiment fondamentalement yaakaar naa ne appareil bi mu ngi def Benno Bokk Yaakaar mhm. te appareil bi wax dëgg yàlla soo xoolee ci euh, Sénégal am na benn appareil étatique bi ak appareil Benno Bokk Yaakaar mooy maire yi élus locaux yi boo xoolee en majorité ñu ngi des ak président de la République pour gunge suñu candidat pour mu mën a nekk euh, gagner élection yi au premier tour en deux mille vingt quatre mhm. tey yaakaar naa waxtaan bi mu ngi continuer dégg ngeen ni président recevoir woon na euh, Ablaye Daouda Diallo di waxtaan ak moom recevoir Mohamed Boun Ablaye Abdoulaye Diallo euh, waxtaan ak moom kon tey membre yi rek la ñu dégg gum officiellement kiiti na mu ngi dem euh, wutali boppam kon damay wax ne ne waxtaan bi day continuer kon damay wax ne ne waxtaan bi day continuer discuter ak nit ñi même au delà même ñu nekk ak ñun dama yaakaar ne ne candidat bi tey le premier ministre Amadou Ba wala le président Amadou Ba dina waxtaan ak euh, ñëpp ñu nga xam ne ne dañu mer sumb mer nekk ci biir alliance pour la Ligue nekk ci Benno Bokk Yaakaar nekk aussi ñu nekk ci opposition bi tamit yaakaar naa dina leen tàllal loxo waxtaan ak ñoom pour wal leen ne lu gën a am solo mooy dañuy xool lu ñuy àndee ba tabax Sénégal boo xam ne ne euh, day mucc ayib nan la ñuy fexee ba joxante loxo bokk ndey ak baay pour mën a liggéeyal askan bi ba askan bi kontaan ci liggéey bi bañ ñoo jippi loolu daal mooy challenge bi pour ñun. waaye waaye eh, ñooñu daal di génn mun na am lu mu wàññi ci eh, waa Bokk Yaakaar. waa naturellement xam nga tey booy lim ah kenn bu jógee ci yow rek am na lu mu wàññeeku te élection bii bu ñu mooy élection boo xam ne ne aucune voix ma ne benn baat boo ñàkk ah, bañ koo ñàkk moo gën ñàkk ko am baat bu yokk ci yow moo gën am baat bu wàññeeku mais li ñu mën a wax rek mooy élection bu ñu jëm élection boo xam ne ne rendez-vous benn leader la ak askan te wax dëgg yàlla Amadou Ba mi nga xam ne ne moom la président de la république tànn askan bi jéppi wuñ ko am na benn capital sympathique bu am solo boo xam ne ne population yi am nañ ko ci moom kon respect bi nga xam ne ne population am nañ ko ci moom ndax moom yaram ndax tekkinam nekkul nit koo xam ne ne dañ koy dégg muy traîner ay casserole déggoo ko muy nekk nit boo xam ne ne day saaga nit ku ñàkk tekkin mhm. nit boo xam ne ne euh, dafa ko déedéet mais Amadou am na vraiment yar ak tekkin bi xam ne ne këru diine yëpp naw nañ ko am naag jàmm ak këru diine yëpp fii muy Touba muy Tivaouane muy Ndiassane muy Médina Gounass muy ci laayeen yi wax dëgg yàlla Amadou wax dëgg yàlla suñu waxalee yàlla rek euh, Sénégalais yi sondage bi nga xam ne ni moom lañ doon def tey bu ñuy wax affaire euh, ci Benno Bokk ci Alliance pour la République candidat yi nga xam ne ni bëgg nañu euh, président tànn leen boo doon def sondage bi da ngay gis Sénégalais yu bëri dañ la doon wax ne ne ah président di tànnee Amadou Ba day nekk tànneex boo xam ne nii dina am pour coalition Benno Bokk Yaakaar mi dina am njëriñ ci Sénégal mm-hmm. parce que tam ndénkaane booy dénk da ngay dénk ko xam ne mën na euh, am na xarañ am na am na compétence am na euh, xarañ na ci liñ koy dénk te wax dëgg yàlla Amadou Ba euh, c'est un grand fonctionnaire c'est un grand commis de l'État euh, c'est un euh, euh, fonctionnaire classe exceptionnelle te fàttali ko sànq xam nga président boo gisoo bu dénkoon ko affaires étrangères dénk ko ministère des finances dénkaat ko euh, premier ministre c'est parce que am na compétence xarañ na deuxième chose mooy wóolu na ko ñette ñetteelu chose moom mooy que hmm. léegi nag lu des mooy capital sympathie bi nga xam ne ni ko bi am nañ ko ci Amadou Ba ñun ñu nga xam ne ñoo ànd ak moom di ko jàppale ñu élargir ko ñu gën koo yaatal pour wax dëgg yàlla continuer di waxtaan ak nit ñi di discuter ak nit ñi di seeti ñi nga xam ne dañoo mer ñu xool lu tax ñoom ñu mer ñu jéem leen delloo si waat def benn say ensemble ñu ànd unis euh, euh, dans la communauté dans la cohésion mooy ànd bokk benn dem Euh, wuti baatu askan bi waxtaan ak askan bi dalal xelu askan bi wax leen ni ki ñu tànn doomu Dakar la doomu Sénégal la ki ñu tànn ku mën li ñu ko dénk la te wax dëgg yàlla bu ñu ko bu ñu ko wóoloo ba voté ko Sénégal li nga xam ne ni président def na ko fi dinañ ko consolider mais dinañ ko gën a au bénéfice exclusif des populations. Euh, mu mel ni kon euh, opposition bi seen euh, cible principale Amadou Ba bala ñu njort ni liggéey bi narta yomb kon. waaw xam nga comme nu may wax toujours rek adduna moom dara yombul loo gis rek xeex pour yéene bi nga xam ne am nga ko pour sa nga xam ne ne am nga ko pour sa askan nga mën koo matale tey damay wax ne opposition bi ngi seen rôle mais lu xaar tey mooy. ñu won Sénégalais yi euh, ay projet ak ay programme yoo xam ne ne dina daal seen xel kon ñun suñu mooy waxtaan ak askan bi ndaxte nag le dernier mot revient au peuple dalal xelu askan bi wan leen ne ki ñu tànn dañu koo tànn ndaxte lu ñu sumb fu ñu jëm mën na nañu faa yóbbule mën na améliorer seen condition de vie seen nekkin mën na ko jëmale kanam hmm. ki ñu tànn bu ko indee du nekk koo xam ne day làmbatu waaye dina mën a liggéey liggéey bu mucc ayib ba ñoom Sénégal Sénégal mucc ci euh, li nga xam ne ne mu ngi xew Afrique yëpp a ngi tàkk mhm. mu ne dafa mel ne Sénégal c'est un îlot de de paix dans une ceinture de feu dëkk yëpp a ngi tàkk tey wax dëgg yàlla gàcce ngaalaama Sénégal tey ñu bari dañuy naaw Sénégal ndax jàpp bi fi am ndax euh, maturité peuple sénégalais bu ñu am muy euh, réewu teraanga réew woo xam ne ne lu xam moom mooy waxtaan kiisoo ànd euh, tey am na lu am solo loo xam ne fii am na Sénégal moo tax tey réew mi du tàkk tey man pël la mais fu ma gisee joolaa dinaa ko jox cëram fu ma gis séeréer ay jaam yooyu dinaa leen jox seen i cër donc on a aujourd'hui Sénégal chance bi nga xam ne mag ñi am na li nga xam ne ne bàyyi nañ ko fi muy yar am na aussi lu fi mag ñi bàyyi muy diine moo xam ne ne moom mooy tax ñu mën a apaiser conflit yu bëri kon peuple sénégalais peuple dialogue la peuple waxtaan la tey euh, nit ñi mën nañu réero ci fànn yu bëri waaye bu toogee waxtaan rek xel yi dellu si waat. tey ajuma eh, fukki fan ak juróom eh, ñi màggal journée mondiale de la démocratie eh, gis nañ li fi ci ci Sénégal depuis affaire Ousmane Sonko bi opposition société civile ñu si bëri mënuñu organiser ay doxub ñaxtu ndax dañu la koy tereel ak ñi nga xam ne ñi ngi ci kaso yi loo gis ci démocratie Sénégal depuis président Macky Sall toogee. waaw lu ma mën wax rek moom mooy wax dëgg yàlla. Euh, Sénégal dañ ko naw réew mu tuuti la sur le plan géographique mais sur le plan démocratique et sur le plan diplomatique Sénégal c'est réew mu yo président bi nga xam ne ne moom lay nit ñi di ŋaañ jël na fi acte boo xam ne ni wax dëgg yàlla euh, adduna bi wëngal këpp ah euh, décision bu jël mooy wax ne ne du briguer beneen troisième candidature te constitution bi mayoon na ko hmm. mu nekkaat candidat loolu wax dëgg yàlla siggil na Sénégal yëkkati na drapeau Sénégal euh, may fàttali ni réew yëpp ñu ngi tegoon seen gët si Sénégal di wax ne ndax Sénégal dina tàkk comme yeneen tàkk i dëkk yi ndax Sénégal dinañu continuer ñu bettee en posant des actes démocratiques très forts di fàttali ne Senghor bu fi ñëwee tamit posé na acte démocratique boo xam ne adduna bi yëpp dañ ñu see naw Abdou Diouf la même chose Abdoulaye Wade la même chose kon fii nga xam ne ne yeneen président yi jaaroon nañ ko foofu la mm. président Macky Sall jaar tey yuuxu bi bëri na mais waaye boo xoolee Sénégal rek ngay gis ah mu ne yekk lu mel ne xeme loo xam ne ne président de la république te dara du la ci fekk mm-hmm. mais nag réew dafa am ay loi dafa war am ay texte tamit il faut que quand euh, force revienne à l' dama yaakaar ne ne tamit quel soit aussi par ailleurs effort démocratique yi nga xam ne ne def nañ ko quel que soit niveau de démocratie bi nga xam ne Sénégal mu koy am mais dama yaakaar ne réew dañ koy pencoo yi nga xam ne ñun ñëpp dañ koo bokk mooy il faut quand ñu sàmm ko mooy lan mooy Sénégal sécurité bi nga xam ne ne mu ngi naaxtaay réew yi ñu wër yëpp mm-hmm. état amatu fa ba ñuy wax démocratie mais état amatu fi mais il ñu sant di gërëm président de la république effort yi nga xam ne ne def na ko ba maintenir l' état soit resté debout ñu am toujours état euh, wax dëgg yàlla jéego yu ñu fi def sur le plan démocratique président de la république c'est un démocrate mm-hmm. euh, vraiment day bàyyi nit ñi di wax lu leen neex di wax lu ñuy xalaat mais quand même wax dëgg yàlla loo gis tamit dafa war am ay limites nit ñi tamit dañu war a savoir raison garder parce que tamit président de la république dafa am njaboot papa la Euh, jëkkër la utu euh, ku mu neex tamit nga yëkkati euh, institution la le président de la kon tamit il faut ñuy wormaal xam nga ñun Sénégal dafa am lu ñu jàngal fii ñu aada woo ko mooy mag day wekk xale day wekk mag mag yërëm xale loolu tamit si suñu aada la tey soo gisee ne Sénégal tàkkul comme yeneen dëkk yi nu ñu tàkkee dañu fee am li nga xam ne mag ñi bàyyi nañu ko fa muy rawatina ci sa diine yi mais tey seetlu nañu ne wax dëgg yàlla boo xoolee ci réseaux sociaux da gis ne gars yi bàyyi yooyu kenn institution yëpp la ñuy attaqué di leen saaga di wax seeni kilifa diine yi loo xam ne kenn waru leen ko wax kenn musu leen ko wax kenn xalaatul woon sax nit ñi ko wax nit tey boo ko bëggee laal rek ah nga laal gëmam ngëm ngëm ngëm dafa fort ci nit mm-hmm. nit mën na pare na joxe bàkkanam ci ngëm kon ñun dañu war a continuer li ñu xamee woon mooy warmal kilifa diine yi warmal institution yi dañ ci war a taxaw démocratie baax mais tamit yar ak teggin moom moy njëkk. dëgg tamit dañuy yar ak teggin ñu warmaal suñu kilifa yi warmaal suñu institution yi démocratie foofu lay commencé nit war nga mën a wax li nga xalaat ci njëkk ak ci ak ci yar ak bañ saaga. Mhm. kon saaga dañ ko war a dàq ci espace public bi violence dañ ko war a ci espace public bi kon man lu may woote mooy woote jàmm woote salaam parce que jàmm si la lépp xëj. Sénégal ñu ngi naw ñu koy wax dëkku teraanga ndax jàmm bi nga xam ne moo fi am ndax waxtaan bi nga xam ne ne wala fi koy wax réeroo amul ñàkk waxtaan moo am. loolu soo déggee ñu koy wax ñu xam ne ne c'est un peuple sénégalais réew réewu jàmm la réewu la réewu diisoo la réewu kaf la réewu ree la tey maa ngi koy fàttali sànq cousinage bu am Sénégal tey may pël mën a wax joolaa lu ma neex sans ma saaga ko mu nekk ay fo mu nekk ay kaf. ma mën a fekk tey sama mbokk joolaay fekk leen foofu di fa wax lu ma neex parce que loolu cousinage moo ko indi te loolu ressort bu am solo la pour stabilité sociale pour la paix sociale ay ressort yoo xam ne dañ ko war a sàmm la kon bi wax de mhm. jaajëf président Macky Sall gàcce ngalaama wax dëgg yàlla liggéey na fi liggéey ba mucc ay ayib ku fi tànn tamit ñu ngi ñaan Sénégal yi ñu wóolu le président Amadou Ba dénkaat ko réew mi mu mën a yeggali liggéey bo am solo bi nga xam ne le président de la République sumb na ko. maa ngi leen waa réew mi. merci beaucoup Djibril Ba di fàttali yow da euh, nga bokk ci APR bokk itam ci convergence des cadres républicains bu Parcelles Assainies. waaw bokk tamit ci kàngamu CCR national convergence des cadres nationale bokk nekk aussi rapporteur général école du parti.